asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen ñi nekk ci hurrasul irada yëpp ñoo ngi leen di nuyu di laaj seen jàmm ak seen jàmm yaram te ñoo ngi nuyu képp ku suñu kàddu egg ci moom ak foo mën a ne yal na yàlla defal nu jàmm nuy dégg jàmm di gis jàmm yal na nu yàlla may jàmm keroog bu jàmm jafee yal na yàlla jàmmal nu jàmmal suñu njaboot kër ak àll yal na yàlla aar nu aar suñu njaboot kër ak àll yal yàlla làq ñu làqal ñu suñu njaboot kër ak àll yal na ñu yàlla defal li gën ci nun te mu gënal nu ku ñu nar a mbugal ba ñu fàtte yàlla yal na yàlla mbugal ba nga fàtte ñu ku ñu nar mbugal ba ñu fàtte yàlla yal na la yàlla mbugal ba nga fàtte ñu ku ñu nar mbugal ba ñu fàtte yàlla yal na yàlla mbugal ba nga fàtte ñu amin waaw mbokk yi euh, ba tey wala fi ma bind wala fi naar la <laughs> te leen ko jàngalul di ngeen ko mën a xam ndax euh, ni maam Moussa Ka ak maam Mor Kayre di bindee wala fal yokk ci tomb loolu moom ngeen gën waaye am na beneen pësin buñ ko mën a bindee mu tolloog baati wolof te du am tomb tombaan yooyu baat bi ci kaw mooy wuppu wuppu baax na ci laax bu tàng wuppu baax na ci laax bu tàng mooy baat bi ci kaw bi ci suuf mooy ku xamul suur na ñu tee sa loxo ku xamul suur na ñu tee sa loxo alif nuun jiim taa ya xaalonk ñu tee sa loxo wuppu baax na ci laax bu tàng ku xamul suur naa ñu téye sa loxo vidéo bi nga xam ne moom lañ leen sànni caabi ji noonu muy vidéo bi nga xam ne euh, gaa yi gaa yi féete ci wàllu aar démocratie ak sàmm ko euh, def nañu ko ak sëriñ Basiiru Poroxaan ak sëriñ Madické Niang ak sëriñ ak ak ak ña ñu àndaloon muy waxtaan woo xam ne daa jëm ci jàmmi réew mi ak jàmmale waa réew mi ak fexe ba ñu jàmmal réew jàmmal waa réew mi waxoon naa fi ne tàngamlu ak yuux muy sa gos te yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man lam yaxtamma bi umuril muslimina fa laysa min um sëriñ Muntaqa Basiru Cheikh Basiru Cheikh Ahmad Bamba mosuñoo umpale ni bu wax jotee dina wax bu jëf jotee dina jëf yal na la fi yàlla yàggal yal na yàlla wéral la yal na yàlla eggale mboolem li nga xam ne mooy seen mébét man nag damaa bokk ci taalibe yi nga xam ne damay nekk ci rajo bis bu nekk di ñaan man ñaan gi moom maa ngi maa ci bis bu nekk ci téere yi rek di di ñaanal képp ku ma war a ñaanal te ñaanal wàllu saan wuy dem delsi la boog moom balab tang yam bu dalee ca miir ba di delsi say loxo kon daanu ko def ci ñu xam ko daanu ko def ci ñi duñ ko xam daañu ko def ci ci dégg ko daañu ko def te kenn du ko dégg waaye te nag dañ koy wax ñëpp di ko dégg Sëriñ Muntaxa Basiru Mbakke fañ la lalaloon toog na fa toog nga fa sëñ Tuubaa noon na bu ñu demee mujj ak jamono daañu toog ba lépp lu lëj ci réew mi balaa lijjanti ku ñëw ba fii man mënu wax ci murit ba tax na sax ku déglu danaan xanaa kii du murit mënu wax ci ak murit ndax mbir boo ca bokkee wax ca yenn yi dum xel waaye Baye Abdul Karim kan nee na ma sëñ ma ndumbe xabbaan nee na ko sëñ Bàmba nee na danañ buñ demee mujj ak jamono daanu toog ba réew mi lépp lu fi laj balaa lijjanti ku ñëw ba fii baat boobu waxoon naa ko pat amat na ñaari at Sëriñ Tuubaa nag waxam mën naa guddee àll waaye du ca fanaan bul bunt bi dana ñëw kon yàlla nañu yàlla teg ci yàlla na yàlla teg nu ci sellal li sëriñ bi ñaan nit ñi nit ñi nee nañu may nañ ko ko la muy ñaan nit kayit bu nit këlee nit na ko ko may li sëriñ bi ñaan nit ñi nit ñi may nañ ko ko la ñaan nit ka bu nit ka dee nit na ko ko may nit nag du tànk ak loxo nopp ak bakkan baat ak bët ak gémmiñ waaye nit xel nit day nite bëtt nag butteku rek atul buyuuta min abaabiha wala taatul buyuuta min suuriha sidna lu nee na man jaar ca ginnaaw sàcc nga waaw <laughs> waaw waaw ah, moo ko jaay te ginnaaw kër ga bañ a aw ca bunt ba kooka dañ koy tuddee ab sàcc ba tax na bu la yàlla jiitalee ci mbooloo moom àddina na la wër ne bu fekkente ni àddina rekk la tax a jóg yàlla du moo lay giidee yow sam lay giidee bu la yàlla jiitalee ci mbooloo nag ngir àllaaxira yàlla moo lay giideel boppam kenn du la sax li ngay def lu jot danga ko def waaye nag ginnaaw sëriñ bi nga xam ne bu waxee ñëpp dégg wax na ñëpp dégg nañ jàmm gën naa del nag ci réew mi ndax waxam day wax xol yi la taxoon Saddam Hussein rey Mohammad Bakhiru Sadr dañ doon xeex mook Iran Saddam woote ne na ñëpp jóg dem xeexi nit ñi toog bañ a dem mu dem ki ci Mohamad Baxiru Sadr ne ko dama bëgg nga wax nit ñi ñëpp ñu mobiliser dem dañuy xeex ak Iran xam nga lu mu ko wax da ko ne Saddam Hussein mu ne ah, ko bu la yàlla joxe jëmm it ruu yi man mii la ko yàlla jox bu yàlla joxee jëmm it ruu yi man mii la yàlla jox xeex bu dëppoowul ak lislaam du ma ci woo du ma ci woo ay julit loolu la ko Saddam meree ba daf koo bombardé moog Zeynab bintul Huda daara jañ doon jàngalee mag ak rakk lañu di si yeneen bi ñetti téeméeri ndongo lañ fa nekkaloon jamono jam koy bombardé Saddam da ko bombardé ba def ko jàll. li tax may loolu dama leen di bëgg a xamal ne yàlla buur du ko jaay doole. ana Saddam Hussein bi ñu koy pendre ba muy bombardé daara jooju mbubb moom mu amat baaxiru sadru soloon. nga xam ne ba ñu sullee jal yee sul summi ko sangu ko suuli dañoo denc mbubb ma mbubb moomu moom la ñu denc moom la ñu denc ak kaala ga ba bis bi ñuy bi ñuy takk baatu sadam aussi muy sandamtalu mbubbum mu amat baaxir sadra lañ ko solal biñ koy pendre mbubb mi la sol won ko ne ka nga bombardé woon moo daaraam ja mbubbam mi lañ lay solal ngay door a dee nit yàlla de su ko fontoo te yàlla yàkkamtiwul dara xel soo ko amee bu la nitu yàlla ñaanee da koy may nitu yàlla mën na laa ñaan mayoo ko mu jóg fi sax bala fi nga des feeg yàlla mbaa yàlla jëlee la fi bokk fi nga wuy ji yàlla bu la fi bayee di nga am problème soo wujjee yàlla gën a gën a am problème tubaab nag naan lañ seen ba fi mu ne gëm ngeen yàlla amatul matériel ak alal dong ngeen gëm ak topp seen bakkan day jeex ane seen baay dee na ane seen yaay dee na ane seen maam dee na ane seen maamar caat dee na yéen a ngi ci yoon ci ngeen jëm ña demoon woote wu ñu téléphone saa ñoo ñu whatsapp amul groupement whatsapp entre àddina ak alaxira waaye ku nekk de kenn xamul lu fa nekk waaye ku ne dana fa dem li ña fa jóge woon dikk wax ni nii la demee ba dellu toog fa dañu xaar te noo topp ci diggaleen ñoo ne moo gën a wóor waaye topp tubaab yi rek di dang-dang yi amul maanaa amul jëriñ kon upp moom baax na ci laax bu tàng te ko xamul suur naa ñu téye sa loxo ku bëgg foo joxoñ jant fenk fa da ngay joxoñ ci penku bi Sénégal du Abidjan Sénégal du Guinée Sénégal ay sénégalais yu jàng yeew moo ñoo fi ne sénégalais ay kilifa yu fi am baat ñoo fi ne Sénégal ay sénégalais yu am ay kilifa ci li leen ñoo fi ne ki nga xam ne ba muy ilif sa baay judduwut ba muy ilif sa baay judduwut mu continue ilif ba sa baay juddu mu continuer di ilif ba yow nga juddu kilif téef gëmu ilif bu la ca yàlla tibbalee jox la ca cër da ngay xam ne yëfi jaabur nga yor yàlla na nit ñi dégg sama wax yàlla na nit ñi dégg koo xam ne ba muy ilif sa baay judduwut sa baay juddu muy doon kilifa ba nga ba nga juddu mu doon kilifa ba nga màgg ba mën man dara ñu seet te leen ilif ab sëq jox la ko ci ne jàppal ko ci lii soo ko ca jàppalee bu la ne defee ko nii da nga ko naa war a defee boo amem xel soo ko amutee nag bis booy génn réew mi xaj ba dugg ca jàkka ja moo lay ëpp mënul yàlla day woote ci kër ak jàmm day jubal ku ko soob te kàddu yàlla kenn koy yor ci am réew su waxee rek ñoo xam ne yàlla wax waaw allah u yatakallamu ala lisaanil ins waaw xul xul jooju yàlla doon wax mu muhammad xul joo ci dégg la ca topp yàlla ko wax waaye ci muhammad lañ koy déggee xul xul joo dégg rek yàlla alquran wax ko xul ja muhammad lañ ko doon wax waaye la mu xaale lépp xawlu laa mu muhammad moo ko doon wax loolu laa jublu ci ni yàlla day jël kàddoom dénk ko ko soob muy wax ci kàddoom yéen ak seen kàddu yi ay neex ay sàcc xaalis dajale ki neexalaate ngeen koy amee waaw dugg ci dëkk bi guddi foog nit ñi seen joxe xaalis ak neexal ci ci ngeen di amee kàddu ku sa poos fal nag bu sa poos fëggee fulle ko rek ku sa poos fal bu sa poos fëggee fulle ko rek kenn ci ku ngërëmal yàlla fal nag falu fii falu fa nu jëm yal nañu yàlla defal ngërëmal yàlla ndax moo ëpp solo na ñëpp ne tekk te déglu yéen ñi doon bañ ñaane na leen maye ngeen ki doon war di dañal liñ koy ñaan nañ déglu ba xam ndax dana mayem diir su fekkee maye na ah, ñoo xam ne fañ ko séentu woon dal na fa xuloo moom boo amee ba xeex am te yaa sañ a dóor yaa sañ a rey yaa sañ jàpp tëj ña nga rey mënatoo dekkal waaye ña nga tëj mën a seen kër bu dee wax dëgg la ci yow leen a dekkal te na la wóor ni man bu ma doon président de la république joxe décret roppalaan naawee fii dem gi ne dóor fa bomb rey fa ay nit man Cheikh Gueye maa leen rey donte damay sërëm nit ñi maa leen rey réew mii képp ku fi sañe tiim nit ne ko téll mu ne këpp nga ñibbi seen kër añ ba rekk jaaxante dara fekku la ca war war ngaa xam ne borom réew mi ci boppam dalaa gemb waaye bu la gembut woon du demee noonu te wallaay am nay xale yu góor yi dem Dubai di ñëw di noosaka wëndeelu ci àddina bi ku leen daboon ne leen bal teel di nga xam ne réew mii am na borom doo yendu ci jàmm ku la xam du yendu ci jàmm koo xam du yendu ci jàmm ku la masa woo téléphone du yendu ci jàmm koo masa woo téléphone du ci jàmm waaye nag loolu la nguurug yàlla moom nee la demee nguuru nit nekk ci boppam taf rek loo xëcc rek ci sa bopp mel ni yow rek yaay nit ginnaaw yow bu ñu dóoroon sa doom bal mu ne mbëpp nga lijjanti ko bu ñu dóoree doomi jàmbur bal na ko lijjanti bu fekkee yaay jiite réew mi bu dee lan nu waxoon yaa nga ca bu dee da nga ñoo nag kuy war bu waree dana wàcc kat du doon ab gawar ndax si waree day daanu yal na ma nit ñi dégg ndax dégg rek moo am solo sidna amar ibnul xataab radiallahu anhu amul ramada mooy atam doom ba nit ñi dañoo xiifam ba ma xëb loom yàlla ji tawut ay année dara amul giléem yi sax amatuñu àpp ñu lekk ay dara lañ defee nga xam ne am na ci waa kër sidna omar ku lijjanti ba am as ndiw am as cunguf mu defar beñu beñu dugub indi ko sidna Omar fekk mu nga takk ndigg la di julli mu takk ko meegal ne ko lii mu doon mu ne ko lii de as cunguf suma lijjanti ca biir banque ca biir magasin la magasin ba la desoon nekk ci as mbugus as mbuus ma gis ko nag daa di koy daa di uti si ndiwlin daa di koy daa koy daa di koy daa di koy daa di koy defu beñe indil la ko mu ne ko man ma suur man Omar ma suur nit ñi di ma xab doom defuma ko demal nga delloo ji ko nga xam noo ko def man Omar ma suur nit ñi ñoom xiif duma ko def sina Umar ibn Xattaab doomam takk naa long bu bokk ci baytimaal ba mu ko xëccee nopp ba dafa naaj ac delloo ko moomuloo ko sidna Umar ibn Xataab indil lañu ko ay gutt yu def lat kole misk mu woo soxna su ndawam di ko ko séddaloo ci ay tappeen yu ndaw ñu di ko séddale eh, waa dëkk bi ndaw si di natt di natt di natt di natt ba ba ba ba baaraamam tooy mu diw ko ci gannaaw loxoom nii waaye ba mu eggalee Omar laa jël loxo ba jaaxaanal ko ci joor gi di ko ci def rigiñ rigiñ rigiñ ba mu bëgg ba mu bëgg mu ne ko eh, yaa nga may rey sama sama sama loxo baa ngi booy mu ne ko dama koy fopp ci suuf ba génn xet du ci def am ko ne asid ah, naa Omar eh, loolu yow nekku ci mu ne ko sama yoon a ngi ci kii sama soxna la bu ma rombee xet gi xeeñ ma rek damay dem safara ndax lii ci àll jullit ñi la est-ce que doom yi naa lugg ci restaurant ne ne ñëpp génn ba ma lekk xam ngeen ne islam du seen morom jikko yi ci lislaam ay or lañ ko waroon di bindee ak jamaa boo bëggee tekki di jëf lu tekki di wax lu tekki mel nu tekki da ngay takk tekki ji kër yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa la njub ne fa la démocratie ne fa la justice ne fa la lépp ne feneen fu ñu leen ko wax lañ leen di nax waaye su ngeen demee ba ci biir xam ne ay naxa fa ne yal na yàlla def jàmm yal na yàlla déggal Cheikh Mountakha yal na yàlla nangu ñaanam yi muy ñaan ci réew mi jàmbat li muy jàmbat digganteem ak boroomam ngir réew mi am jàmm yal na ko ko yàlla déggal waaye yal na yàlla def itam ginnaaw gaa yi dégg nañ diggal yal na waa ji dégg diggal ndax gaa yi ñoom ku ne sam xel ngay demee waa ji nag ñi ko topp ñëpp mu waajal leen lu mu wax lañ wax lu mu waxut waxuñu ko kon neel waaw rek lépp di waaw bu ñu déggee déedéet rek yaa ko wax doonte kenn déggul soo làmmiñ yan yàlla teg na ci jub yan yàlla teg ci sellal yan yàlla defal ni jub ak juble ak juboo ak jubale yan yàlla defal nu jub ak juble ak juboo ak jubale soo jubee da nga juble soo jublee sa njaboot juboo bu sa njaboot juboo nga mën a jubale njaboot ak keneen yàlla na yàlla defal ni jub ak juble ak juboo ak jubale asalaamaaleykum wa rahmatullah ah, li ñuy tëjee tan bii la dégg naa noo lànk nee nañu dañuy mar bi si suba noo lànk ah, ba bi nag alxuraan lañ doon jàng moo tax mu dëgër këcc waaw bu yàlla ak yonent bi day wax moom wax ji day tàng jir waaye nag bu ci yi di wax moom day wax di reetaanloo nit ñi dégg naa noolank dañuy jàng alxo dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy marché suba la ñuy wax nee nañu ñaan nañ autorisation li ma gën a jaaxal mooy autorisation de marche ñu di la ko bindal amul yégle moo am ah man di yëgle laa dégg ne moo nekk ca téere ba ndax man téere ba gisuma ko jànguma ko nañ ko bi lañ ko bindee arafu latin la jànguma arafu latin waaye damaa dégg ci waxkat yi ñuy wax ne téere ba la ca nekk mooy yëgle mars moo am waaye toog di ñu jox la kéen nga doon a mars amul autorisation ji bind ko jox la la yëgle nag mooy dem tàggoo ji rek ñu ne la waaw la ca topp itam ñi nga xam ne ñooy nguur gi li ngeen di dépensé ci terrain mars bu ngeen asaka ja sax du ngeen ko dépensé ci ci ci ci ci ci ci ci euh, organisé mars du ngeen sànni lacrymogène du ngeen du ngeen dem ba jeexale lacrymogène di sànni xeer di toxoñoo ka jooy ànd ak ak ñoom ndax kaani moom ku koy kaani moom ku koy ku koy ku koy ku koy saafun ci biirub néeg tey noyyi da nga xam ne da nga ca bokk saafun yooyu ngeen di sànni mooy lacrymogène saafun la tudd si wolof saafun yi ngeen di sànni nit mu yàq seen bakkan yi seen bët yi da ngeen ciy saafunaale seen bopp ndax mënut ay nit ngeen di ngeen ay ay ay ay ay ngeen di daj di dang dangi dàqante euh, man ngeen organiser marché bi ñi nekk ci gannaaw ñi nekk ci wet gi ñi nekk ci kanam ngeen déparé fi ngeen war a déparé ba egg fa ngeen war a yegg yéen ñi nga xam ne yéen tàggoo marché yi bu ñu leen ne marché leen fii yem fii da ngeen di dale fi leen wax yem fi fi ñu leen wax ñaareel ba itam waxtu wa ngeen wax ne ca ngeen di ñëw na leen fa fekk ndax bu waxtu wéer kat ngeen toog fa ñu leen jóge leen fi ngeen du ngeen fa jóge léegi nag ñu leen tasaaree yi na tooñ boo tàggooyee ne damaa bëgg a def sitting benn place lay doon waxtu sàngam laa koy def waxtu sàngam ma jóge fa du ma sànni xeer du ma damm taabal jàmbur du ma yàqal kenn dara te bu ñuy tasaaroo bu ñu fa naanee ndox foraale mbuuse yu bali ko bale ko ba mu set wecc loolu loolu loolu islam d'accord na ci su fekkee ni itam da ngaa yëgle am marche ne damay marche ñu ne la ah wiw yoon de lu ëpp juróomi junni oto fi jaar par bis boo fi boolee mbooloo mu toll noonu te amuñu fu ñu jaarale fu ñu teggil oto yi ah, kon da ngay indi am embouteillage te la barara wala dirara doo lor sa mbokkam jullit sa mbokkam jullit lu lor su boobaa na nga seet ba xam ndax yoon woowee ñu ne la bul ca jaar wote yu bari yee tax ndax boo ci jaaree te ànd ak mbooloo dangay ngay yàq nit ñi seen ak dem te ba ñuy bu ñuy tabaxu yoon mars taxut loolu itam na ngeen ko xam ba ñuy tabaxu yoon mars taxut ba ñuy tabaxu toon yoon aw ca te dem tukki moo tax waaye nag su fekkente ni da ngeen di bëgg a mars ci yoon wi buur gi ne leen jaar leen ci yoon bariwut ay oto yoon wee daa bari oto su ko defee ngeen bañ a yàqal nit ñi seen ak dem ndax yéen a ngi mars yéen waaye am na ñu am soxla su dul mars te dañ cay dem na ngeen leen fekk ca loola loolu mooy yoon moom bu fekkee ni da ngaa def itaau itaau kulli si aqin aqahu doo nopp da ngay noppalu itaau kulli si aqin aqahu mooy li nga moom nga jël ko li say morom moom nga bakkoog ñoom waaye yow itam boo jegee rek ne maa moom lépp dama ko ne nam nit di ma fa bàyyi dara ah, wax dëgg yàlla loolu day nawaar kii xëy war a dem liggéeyi bureau war a wàcc sonn ñibbi këram bu dee fii la mooy yoon wi nga xam ne fële ñëpp di jaar yow too yow tey liggéeyi woo nee nga mars mooy doon sa liggéey kii liggéey la bëgg a def yow mars nga bëgg a def doo seet yoon wa nga xam ne ñooy liggéey duñ ca jaar nga jaar ca te dem jaaral ci yoon wi nga xam ne ñooy liggéey duñ ca jaar nga jaar ca te dem su fekkente ni da ngaa bëgg jaar ci yoon wi nga xam ne ñiy liggéey ci la ñuy jaar benn nga bàyyi ba ñu dem liggéeyi nga jaar fa def la ngay def bala ñoo wàcc baa nga bàyyi ba ñu wàcc ba ñibbi nga def fay def la ngay def waaye bul dàkk ba ñuy liggéeyee ko wàcc nga dankaloo ca yow na yow tamit nag ne doo fa jóg loolu moom loolu moom loolu moom provocation lay tekki waaye du yoon dañuy silvissé moo gën wax naa leen ko ba tàyyi Sénégal yi silvissé leen ngeen noppalu marcheurs yi silvissé leen policiers yi silvissé leen bu ñu ko defee ngeen noppalu bàyyi ma ki di nokki kaani di nokki di nokki poobar seen saafun yii yaay Marème Faye di ko gis yéen policiers yi ak ñiy marchés dong yi na koy gis kon organiser leen seen bopp organiser ah, da ngeen seen bopp ba egg foo xam ne daanaka boo ngeen deeti marché préfet danaan dem leen marché jëru sax police sax ah, police jëru mu dafa dem sàpp ne dañuy marché duñ taali kër duñ taali yàq duñ yàq àll di jàmbur dañuy marché ci yar ak teggin wax la ñuy wax te dem seen yoon bu ngeen ko defee jàmm rek kay am bu ngeen ko defee jàmm rek kay am jàmmoo leen jàmm daa jot aw askan bu ñuy rente ba fukki nit dee ca dañuy teey nag dee gi sonn nañ ci yonent bi nee nag da màbb kaaba gi ñu tabaxaat ko ba muy juróom-ñaari yoon moo gënal yàlla nga fekkam jullit rey ko man qatala nafsan nag bi xeyri nafsin aw fasadin fil ardi fa kaannama qatala naasa jami'an jaar ci tali bu mag bu ñëpp soxla yor seeni oto waru la liggéeyi nga ñëw ne ci bëng ne du ma fi jóge oto yi taxaw sa ginnaaw war a dem oto yi taxaw sa kanam war a dem te ñoom dañoo amee soxla nag ci fasadun fil ardi la bokk loolu ak yàq la tere borom bureau liggéey bureau ak yàq la tere commerçant bi dem Sandaga ak yàq la bu leen di makk yoon yi mag yi mbaa bu ngeen leen dee makk ngeen di leen makk ci heure bi nit ñu demee ba egg te ñibbisee ñu mbaa ngeen bàyyi bañ dem ba ñibbisi ba noppi ngeen def fay coowaloo jëme suba loolu daal laa waxoon ne dinaa leen ko def ngeen def ci intiba préfet itam may leen ñu marche waaye bu leen préfet préfet dee may ngeen marche itam ngeen def fi loo xam ne lii ministre de l'intérieur da ko naa yaa ko def ndax yaa leen ko may loolu tamit du yoon boo jëlee pépp bàyyi fa péfit nit du jël pépp jël péfit nit du jël pépp jël péfit loolu ma dégg ñoo lànk di ko wax di wax ne dañoo bëgg ñu génne ñoo ñu nga xam ne ñoom lañ jàppoon man defe naa ne dañ leen génne ah bu fekkee ni bàyyi ma ki nee day jubale bu dee dafay jubale moom ñu nekk ci biir danañ génn ci biti soo leen tëjee bañ nee génne nag jubale amagul da nga leen di woo ñoom man dégg naa fi ko naan président day woote waaye ñi muy woo ni ki ni ki ni man waxuma nga woon ci waxuma nga woo ñi ci biti di marché ñi ñu yóbbu ca kaso ba tëj leen ci problème marché bi tax ñooñu laa ne da nga leen di génne woo leen taaj leen jàkkaarloog ñoom def leen ni nga def Amadou Sall xamal leen ne moytu leen seen bopp kilifteef gi maa ko yor ba ba waxtu ma koy delloo jot te du ma nangu na ngeen di jalgati te fekk maa yor gi te bëgguma di caq ak yéen loo xam ne lii dañ ma ciy sikk mbaa ñu leen di sikk yem leen ci fi ngeen war a yem su ngeen bëggee marché marché leen waaye bu ñu leen joxee heure na ngeen ñëw ci heure ba fañ leen jaarloo jaar leen fa su heure ba jotee ñibbi leen bu leen sànni xeer bu leen tëj oto bu leen lakk oto jàmbur bu leen saaga bu leen xasee